jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix suturaak caraanga ak poche def dara ni ñu koy baax ji dafay fajaru àjjuma mooy ànd ak yéen ci ilallahi ibadallah ilallahi ibadallah di jéego yi nga xam ne mooy jéego yi nit ki di jéego jëm ca boromam ba dama ci benn bindkat bu ñu wax docteur Yuusuf alxaradawi yal na ko yàlla yokk wér ñu benn bind benn silsila bu am solo tudde ko fi tariqi ilallah fi tariqi ilallah ndax gaa yi danañ ko faral di bind yu mel noonu ibnul qayim al jawsi moo bindoon madaariju saalikiina waaw tabarkalla nga ñëw fekk moom suñ tubaab bind masaalikul jinaan ila axiri yi muy xam-xam yi nga xam ne ci lañuy ñuy nit ba nit ki ngay gis nii mooy nit ki nga xam ne ki ngay gis nii mooy nit ki li ci bitti moo ne ci biir li ci biir moo ne ci bitti xam-xam boobu loolu lay def bu bàyyee nit defar ko ba noppi moroomum nitam moo koy gënal xaalis nit a koy gënal lu dul nit te nit ñëpp lay bëgg nit ñëpp lay fonk lu tax parce que xam-xam boobu mooy dind ci moom sidit yu baaxul yooyu moo tax xam-xam ba mag ñu tudde woon ko ilmu tazkiya waaw ilmu tazkiya ñenn ñu tudde ko ilmu tasawuf ñenn ñu tudde ko ilmu tarbiya nga xam ne dala na defar ba sa làmmiñ wi sa làmmiñ wi waxuma la saaga mbaa wax lu baaxul mais lu négatif du ci génn parole négatif je pense que noonu la yooyu parole du ci génn waaw ñi mag ñi yaroon koo ci topp démbam noonu lay mel ñi yar tey koo ci topp tey noonu lay mel xam-xam bu am solo la bu nekkee ci penc mi mu jag lu mooy mën ngaa dégg koo xam ne kii dañ naan la kii nitug diine la mu wax njombe ëpp naa def ala kulli xaal ilallahi ibadallah ñu àndoon maag yéen nag woon ko ca al yaxasa tegoon ca al fikra tegoon ci al basira tegoon ca al azm waa ji tàmbalee dox mu doon dox nag ba agsi ci at tawba at ba ñu doon topp tawba ba agsi ci mukaffiraatu zunub waaw li li li sunu borom defal eh, bàkkaarkat yi di san mukaffiraatu zunub liy fari bàkkaar liy fari bàkkaar ca la tawba topp bokkoon muy tuub li fari bàkkaar ca la istixfaar bokkoon muy jégglu waaw jégglu ci la fari ca la jégglu bokk waaw li far bàkkaar ca la alxasanaatu wa taaat bokk yu rafet yi ak topp yi liy fari bàkkaar ca la tawxiid bokk ak set ci bokkaale liy fay bàkkaar ca la njàpp bokk ak julli ca la ñu tolloon bind bi weesu njàpp lu rafet ak julli gu rafet ca la ca la bokk mu ñëw tey ci beneen tomb soxna njinde ci liy fari bàkkaar yàlla na nu yàlla faral suñuy bàkkaar moo di lan asiyaamu wasalaatu walxaj allahu akbar asiyaamu wasalaatu wal xaj ndeysaan asiyaamu mooy koor ndax ibaadaat yi te mooy yi nu yàlla sant koor ca la bokk sadaxa muy saraxe ca la bokk aj màkk ca la bokk umra ca la bokk boo demee ci saxiixa yi ni buxaari wa muslim daf ci am hadis boo xam ne ñu ngi ko jële ci abu hurayrata ñu ngi ko jële ci abu hurayrata abu hurayrata dégge ko ca yonent ba sallallahu alayhi wa sallam lu yonent ba wax man saama ramadana imaanan wa ihtisaaba gufira lahu ma taqaddama min zambi ku fi woor weeru koor fekk nga woor weeru koor wa te gëm tax nga woor ko ak sàkku payogu yàlla yàlla jéggal la sa bakkaaru daaw maanaam bakkaar ba jiitu koor ga yépp mu jéggal la ko allahu akbar mu tax koor kenn du ko kafe seytaani mooy fexe nag moom ba koor gi ñëwee nit ñi di kaf ci koor gi di di lu ñu def ko ci koor gi ba koor gi jàll te koor nekk lu sérieux déggal man man saama ramadaana imaanan wa ihtisaaba gufira lahu maa taqaddama min zambi waaye bu koor gi ñëwee fii sketch si ci koor gi daanaka day yàq koor gi xajamal ko téléfi télévision boo taal seen sketch yoo xam ne wóor na lii du koor di reeloo nit ñi di di fecce ka ndagar wala ka taasu sketch bu ne nga seetaan ko loolu loolu day day tax nit ñi ñoom mel ni ko fàtte sérieux gi nekk ci koor baax gi nekk ci koor ak ni muy fare bàkkaar mu waxaat ne man xaama ramadaana imaanan waxtisaaba xufira lahu ma taqaddama min zambi waaw ku laxasaayu weeru koor màng ko ba mu jeex weeru koor màng ko ba mu jeex ñu jégg la sa bàkkaar yiitu woon koor gi wa man xaama laylatal xadr imaanan waxtisaaba xufira lahu ma taqaddama min zambi seetal loolu ku leetul xadar ñëw nga laxasaayu ko ba mu jeex ñu jéggal la sa bàkkaar yi jiitoon leetul xadar mbokk yi kon jëf jooju ñuy jëf muy woor muy saraxe muy aj wàccuwaay yooyu la am ci pénc mi ilallahi ibadallah waaw mu ngoog boo ñëwee ci aj abu hurayrata déggaat na sallallahu alayhi wa sallam di net di waxtaan man xajja hada al bayt fa lam yarfus wa lam yafxus xaraja min dunubihi ka yowmi wala dan humu waaw nee na ku aj kaaba gii ku ko aj si bi nga aj see defoo fi caaxaan bi nga aj see defoo fi caay-caay booy ñibbi sem réew doo yóbbaale bàkkaar ah booy ñibbi sem réew doo yóbbaale bàkkaar boo àggee sam réew yaa yaag liir buy door a juddu yéen a yem moo tax mu waxoon ko sama ujaaj boo gisee ñuy wat ab ujaaj liir buñ koy tudd dañ koy wat te ujaaj comme dañ koy tudd dañ koy wat ñu wat la ba nga seet wecc daal lay tuddee alaaji <laughs> cetité maa ko ujaaj ba rekk ndeysaan mu xëm waaw wallaay ndeysaan hmm? mu xëm cetité waaw nit ki bi mu ajee màkkati deful fusuux deful rafas caaxaanu fa caay-caayu fa buy ñibbi du yóbbaale bàkkaar day mel ni liir buy dooru judd ci ñàkk bàkkaar ma ne moo tax ñu koy wat daa di koy wutalu tur wat ko nel bu dee góor bu dee jigéen ñu jemp ca kawar ga tuuti daal di wut tudde ko jigéen ka ajaa ndeysaan allahu akbar tudde ko góor gi alaaji ñu dem ñibbi wallaay ndeysaan hmm? ujaaj ba na këpp mën na ko jaar na ko de mbokk yi kon aj màkk day far bakkaar waaw ngoog kon nag képp koo xam ne ki aj màkk aj nga màkk nga bàyyi xel ci occasion bi nga am ak li la occasion bi mën a jural waaw mu waxaat moom alayhi salaatu salaam ci hadis boo xam ne ñu ngi ko jële ci amr ibn al aas mu ne yonente ba nee na inna al islaama yahdumu ma kaana qabla wa inna al hijra tahdumu ma kaana qablaha wa inna al hajja yahdumu ma kaana qablahu nee na loolu yonent bee ko wax ñu ngi ko jële ci amr ibn al aas nee lislaam day màbb li ko jiitu woon bu nit ki duggee ci lislaam lim bàkkaaroon lépp yàlla baal na ko waaye ku gàddaay li jiitu woon lépp yàlla baal na la ko waaye ku aj màkk li jiitu woon lépp aj màkk ga màbb na ko waxaat na ne ci fari bàkkaar yooyu al umratu ila al umra kafaaratun lima baynahuma wal hajjul mabruur laysa lahu jaza illa al janna nee na aj màkka nee na umra ak umra day far bàkkaar yi ci diggante yi maanaam weeru koor boo umra woon weeru koor del si nga bi sunu borom baal na la fi nekk lépp waaw diggante umra ak umra mu ne aj nag moom li muy def moo raw loolu moom aljanna rek allahu akbar aj moom aljanna rek waaw ba dama ca nasaa yi yonent baa ne taabihu bayna alxaj wal umra fa innahuma yunfiyaani alzunub kama yunfi lkiir xubs alxadid yonent bi nee na baagante leen aj ak umra fu ngeen amee occasion rek aji leen <laughs> fu ngeen amee occasion rek umra ji leen ñu ne ha mu ne waaw ndax ñoom ñaar dañuy raxas nit ci bàkkaar ni nga xam ne noonu la upp tëgg bi raxase weñ ci xumaar weñ gu xumaar boo ko yóbboo ci ñay liggéey ci weñ am nañ lu ñuy teg ca moom ba mu raxas ko ba weñ nga set wecc waaw léeg-léeg xeetu ndox lay doon léeg-léeg xeetu sawar lay doon waaye ba mu set wecc bu fi nogay takkoon or bu ëppale muy takk <laughs> ba or ba ñaqam ma jàpp ko ñoom seen yooyu bu ko yëtee Modou Mbacke jum xam na nu mu koy def ba or ba weexaat wala xonq cër mel na mel no yi takkaat waaw seet <laughs> orom no ngay waaw de <laughs> kenn mësu ko gis rek waaw genn cee rek <laughs> ñaari jaar yu nopp amul jaarul loxo te ceen nga daan dagg mu fas koo gu wëñ mu ne ma ñu ne ne or or kenn ko génne asaka ma ne ko yow pourquoi la question lu tax ngay laaj laaj bi mu ne damay laaj rek ma ne ko yow de waxuñu la yow yow moom li nga li nga yor moom kenn ko génne asaka ngeen baal mu waaye tey ko oram nogay xam bu télévision bët bu seet ma leen nogay waaw li may wax nii ngeen xam ne <laughs> kenn mus koo gis rek oram nogay <laughs> dégg nga yonent bi waxaat ci mukaffiratu sunu zunub muy bàkkaar yi mu ne ci wax ko ca ashura ahtasibu ala llahi annahu yukaffiru sana allati qablaha mu ne yaakaar na ne ashura woor ko day far bàkkaaru at mi nga weesu arafa it woor ko day far bàkkaaru at mi nga weesu ak at ma ca tege woor bisub tamxarit waaw bu bu ndaw ku ndaay reere cere ba xëy nga woor bés boobu day far sa bakkaaru at bu arafa jotee nag nga woor arafa aha arafa moom ñaari at lay effacé at mi weesu ak at mii mbokk yi yiy far bàkkaara ngoog waaw yiy far bàkkaara ngoog waaw waaw bokk na ci yooyu nag as-sadaqatu tudfi'u al-xati'a kama yudfi'u al-maa'u an-naar nee na sarax day far bàkkaar ni ndox di faye sawara allahu akbar sarax day far bàkkaar ni ndox di faye sawara waaye saraxit ci jafe la bokk dëkk bi ki ci dàq saraxe ci li ci ñenn ñi mooy kay saraxe këyiti tabax këyit yu këyit yi ñuy ñuy bindee lay dem ci ab ku ñu tuddee sëriñ sarax ko ñetti këyit wala ñetti sondeel mbaa ñaari guro yu xonq ak ñett yu weex mbaa loxo mbiskit bum fanaanoo mbaa soow mum fanaanoo da leen seen benn patron mbokk yi mu dawal ba ci ñiy yalwaan teg gi tànkam taxaw ñëpp da wër ko ndekete mbuusum mbuusum soow la yor yow mi topp ci moom sax da ngay ruus mbuusum soow defe nga ne mbuusum soow faj na aajo yow ki lay génnloo sarax bi sarax bi génnloo la ko pour yàlla daf la ko génnloo pour jinne yi pourquoi ngay saraxal jinne yi lu ngeen séq lu ngeen séq ba soow mi yàlla sàkk ko sàkk xar ma ko génne wala xa nago wala ñoom seen yooyu nga dem jël soow moomu yow di ko jox jinne yi naan ko am yàlla jox la yàlla ne man koy ma ko man am naa leneen lu may soow <laughs> noonu ko suñu mbokk sas tayib soosé di waxe yàlla na ko yàlla yokku wér waaw sas tayib soosé nee na añ jot ngay añ ub sa buntu kër nee dóor sa ceeb ba gàtt maccaat ba desal maccaat ak ay xooñi ki ceeb jaxase ko ne taali bi am yàlla jox la sunu borom ne la joxuma ko de man am naa leneen lu gën lii waaw <laughs> ba xale ba saraxee ganaar gu feebar nga xam ne deux mille la ganaar gi feebaroon deux waaw la ganaar gi feebaroon deux mille seize dix-sept ba ma ko waaw am yàlla jox la ma ne ko lii la ma yàlla jox <laughs> ci mu ne këpp ma ne ko ah? daf ni ma am yàlla jox la ma ne ko lii la ma yàlla jox mu xool ma ma xool ko mun ne ma sama yaay la ko jox ma ne ko waaw kay ko ba yàlla du joxe lii yàlla du joxe ganaar gu feebar waxuma laa bu yooyu gii mu ne cell mu ne cell mu ne ma ah, ma ne sama yaay ne ma naa la ko sarax ma ne ko ah, nee neel si yaay merci ma jox ko kële ca bopp koñ ba waaye wax daa dëgg sarax day far sarax day fay day fay bàkkaar ni ndox di fayee sawara waaye nag ban sarax ban sarax nit ñi nit ku jóg ci cent mille francs def ko sarax un million def ko sarax deux millions def pour ñoom loolu du sarax pour ñoom sarax mooy la ngay coppati léeg-léeg gis taalibe bu wër Dakar ba daj ndeysaan du am deux cent francs te nag coow laa ngi ne kurru ci dëkk bi taalibe yi taalibe yi taalibe yi taalibe te ku la gën a bëri coow ci taalibe yi boo ko laajee musta mus ba mu tàmbalee jox taalibe ak léegi lim joxe lépp matul mille francs ay dërëm lay joxee ki ay koppa kopp ak ah, soow ak mburóog gerte ak léegi sax ña ngi see boole dégg naa pont saraxel pont ak i nàkk waaw ak i nàkk <laughs> toxal sa daa gàddu booyub nàkkam indi ca daara ji mën ne ko mukk nun duñ lekk nàkk fii naa mën ne ko dong yi duñ lekk nàkk ah kon di jéggal ma mën ne ko jéggal naa la kay yóbbul sa nàkk rek waaye lu ko may fi lu tax ñun suñ daara kaar-kaar <laughs> suñ daara kaar-kaar fexe naan bu wutal xale yi mën yi xale yi xam lu ñuy añee xam lu ñuy reere bu subaa ñu xam lu ñuy ndékkee tey lu ñuy njogani koo nga gàddu fa sag nàkk goo xam ne ku dem jànq bi nga ko defal dafa lamb nga tuur ko pepp ma ba noppi ci ay loxoom nàkk ko yëtnu noo bañ noo bañ duñ ko lekk ngeen baal ma ci toom bi waaye wax na dëgg waaw <laughs> sarax du noonu sarax da nga naan lu am solo koo ko jox mu siggi waaw koo ko jox mu siggi bu nit ñëwoon di sarax nga ne ko tépp dix mille muy la ma wut weccet nga ne ko déedéet jëlal yàlla jox la day siggi xool la waaw mu ngoog ala kulli xaal maa ngi ci ilallahi ibadallah maa ngi ci mukaffiratu zunub mu ñëw ci beneen tomb ci lii far bakkaar mooy zikrullah allahu akbar zikrullah mooy tudd yàlla mooy tudd yàlla rawatina nag tudd yàlla gi bu fekkee ma ngay départ ca xol ba door a jaar ci wu lemmiñ allahu akbar bu fekkee tudd yàlla gi ma ngay départ ca xol ba door ñëw ci làmmiñ yaa yoon lesina amanu uskurullaha dikran kathira ndeysaan wa sabbixuuhu bukratan wa asila ee yéen ñi gëm ee yéen ñi gëm tudd leen yàlla dee leen tudd yàlla dikran kathira tudd gu bari tudd gu bari nag amul limite déedéet na bari rek Cheikh Islam Haaj Ibrahima Niass mu ne na bari rek li fekk jàppi wuñ la dof ñu naa mu ne zikkara goo mu neew <laughs> allahu akbar zikkaran kasiira waaw waaw zikkaran kasiira ndax kasiir ja daa bëri wa sabbihuuhu bukratan wa asila dee leen xëy di ko bàkk bu ngoonee bàkk leen ko waaw bokk na ci zikkar ya tasbiix te mooy subhaanallah tahlil te mooy laa ilaha illallah tahmid te mooy alhamdulillah takbir mooy allahu akbar alxaw alxaw te mooy laa hawla wala quwata illa billah yooyu na bari yooyu na bari kasiran na bari boo fi nekk di ay douze mille vingt quatre ak trois cent cinquante deux quatre cent trente cinq ak ñoom seen yooyu déedéet na bari rek na bari rek waaw waxoon naa ko ca ba ñu nekk immeuble Fahd waaw alaaji Dramé ca Thiès xëm nee keroog ayut <laughs> waaw ma ne leen lim biñ lay jox immeuble Fahd mi ngi nekkoon quinze étages ma ne leen ñun ñu nekk cinquième jenn waaye ñëw dugg ci ascenseur bi bëgg a ñëw cinquième daal ba six jaawale na cinq ak six dañoo jege wala mu jaawele neuf ak six dañoo niroo neuf la jëm ba six nekk six ay gayndee fa nekk te ascenseur bu àggee day ubbikul boppam mu ubbi ko nga jàkkaarloo gaynde yi ñaar dugg fekk la ci musiba mu ne mën na laa dal ma ne nun la zikkër ci lim yi mel bala ngay dugg ci lim ay zikkër ñoom seen yooyu demal jiital la gaa yi daan jiital waaw waaw sëñ borom daal daana ko wax de waaw waaw rajala salaam zikkara ngoog subhanallah wa bihamdi ca la bokk ndax day fari bakkaar laa ilaha illa wahdahu la sharika la lawal mulku lal hamdu wala kulli shay'in qadir fukki yoon hmm, boo ci defee fukk mel nga ni ku goreel fukki jaam mel nga ni ku am fukki tuyaaba faral nañ la fukki bakkaar benn tuyaaba nee naa mooy liberté un deux trois quatre cinq six ba extension nga boole si jëppal un deux trois quatre lépp nga boole ko loolu mooy benn tuyaaba léegi nag boo waxee laa ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku loolu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fukki yoon am nga benn tuyaaba ñu dencal la am nga nga am nga fukki tuyaaba ñu dencal la bu yemal xiyaama jox la lépp tabarakallahu mbokk yi maa ngi ci mu kafaaratu dunub maa ngi toll ci zikr teg leen seen baaram foofu ñaan suñu borom mu may nu buñ ko dégloo benn yoon ñaar yoon ñetti yoon dañu indi bu bees maanaam su ngeen ko seetloo daanaka waxtaanu vendredi waxtaanu samedi waxtaanu dimanche dafa mel ni benn yoon lañ koy am par weer arrachiduna ak itam li jaan xoola rasul moom itam nun la mel bu dee waxtaanu fajar nag chaque jour ngeen am bu dee lundi ak mardi mercredi chaque jour ngeen am bu bees incha allah ndax loolooy mën a tax yooyu am ndax studio bi du suñu studio nun dong maak euh, journaliste yi laak euh, tubaarkàlla <laughs> ak war a yëkkatee jotaay bi ndax mbokk yi xëy ci xibaar ñu ngi ne taxaw yor seen i kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar tuwaat firiñ fàncal lu ko ci wax ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu sponsor mii C3S nekk ci euh, croisement Lagros wala yoonu wala yàlla yàlla defal seen i fal suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.